sant leen gërëm leen yéen ñëpp ci seen teewaay ak seen taxawaay ci bisu Serigne Touba yi ñuy dugle woon ngir ñu dugg ñu du ko ci santale yàlla ci xéewal yu rey te baru te bari te yaatu yi mu jële woon ci nattu bi nga xam ne mi ngi tàmb leen fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar 1313 si jide kon yal na leen yàlla fay jasa al xayri wa xayra jasa sëriñ bi nag nee na balaa dugg ci kàddu yi day ñaanal rek mboolem taalib yi nga xam ne bàyyi ko ne seeni kër ngir màggal si bisu Serigne Touba bi yàlla suñ borom moom leen ci yoon wi ñooñu nag nañ xam ne shahid lañ shahid ne ku ko def boo faatoo rek àjjana ngay ñoom nañ xam ne seen tuyaa ba àgg na kon sëriñ bi ne yàlla suñ borom yërëm leen te xaaril na àjjana te dajale leen rek seen sëriñ bi nga xam ne moo leen taxoon jóg di sëriñ Tuubaa ginnaaw loolu nee na mi ngi yëkkati gën jaa rafeti nuyoo di ko jëmale ci ñu mu bokkal lislaam ji bàyyi ko ci këri diine yi ak kuréelu lislaam yi ak seen ndaw yi fi teew yépp bàyyi ko ci biir réew mi ak bitim réew di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay ak seen taxawaay bu rafet ci bis bi sëriñ bi nee na mi ngi nuyu délégation bi fi bi fi teewal njiitu réew mi di président Macky Sall ci njiital ministre de l'intérieur Antoine jomm ak mboolem délégation bi mu àndal yëpp di leen sant di leen gërëm bu baax ci seen teewaay ak mboolem ñi mu àndaloon di saytu luy yéwénal màggal gi te moom mu nekkoon ci seen bopp di yóbbante ci moom ak cant ak ngërëm